borom daare yi borom sañsa yu taaru yi sëriñ Mansour Sy xalifa général de Tidiane bu yanj bi sëriñ Mansour si di sët ci El Hadji si nekkoon ku biir lool ñu doon ko dakkantalee borom daara yi ngir lim bu takku bi mu yoroon ci ay daara alxuraan juróom fan ci weeru décembre ca atum 2012 ci la wuy ju woon boromam ginnaaw bi mu làqee lu toll ci juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñaar laata sëriñ Cheikh Tidiane Sy almaxtum di ko wuutu ci xilaafa gi ci soxna Aysatu Seck ak sëriñ Babacar si ginnaaw bi fi sëriñ Abdoul Aziz Sy baax bàyyeekoo ci la ko wuutu ci xilaafa gi ci juróom fukk juróomi at yi mu def ci bopp xilaafa gi nekkoon na ku amoon daraja lool ci diine ji te taxawaayam ci tariqa tijaan doonoon na lu ràññeeku ci réew mi xam-xamam bu yaatu ak farloom ci wàllu jàngale taxoon na ba ñépp naw ko ku déggoon nasaraan lool amoon may yàlla itam ci wàllu baatin li koy firndeel mooy saafara gum doon saafara ci lu bari ci ay jàngoro doomu aadama yi lépp lu mu xam lu mu mën ak lu doon jëflanteel fii la ko amee ci réew mi fii la jànge ba xëy nekk ab jàngalekat bu mag daanaka sax moom moo jàngal ay doomam itam nekkoon nit ku yaatu te ràññeeku ci wàllu xel ak xalaat bu rafet boo xamante ne dina jëmal réew mi kanam ak diine waaye ànd ak loolu nekkoon na ku neexoon ni waxtaan te yaatu woon lool xam-xamam xarañteefam ak xitteem gu bari mayoon na ko mu jiite xilaafa gi ci jamono joo xamante ne jikko yu bari yàqu woon nañ waaye amoon na ci taxawaay bu am solo am xam-xam ragal yàlla yaatu xol tey wax dëgg la ko ñépp xamee am xam-xam ak taxawaay bu yaatu ci wàllu njàng ak njàngale lépp luy xeetu xam-xamu diine ji nekkoon na li nga xamante ne ni ñu bari ci lañ ko nawee moom nitu diine bu yaatu boobu jaar na fii ba jàll waaye xel dootu ko fàtteeti xol yi fees na ci dell kaw feebar bu ko tëral ci la génn àdduna ci guddib juróom-ñett jàpp juróom-ñeent ci weerum décembre atum 2012 ca France ci dundam borom daara yi nekkoon na ku ràññeeku lool ci diine ji ngir xam-xamam mbaaxam ginnaaw bi mu fi bàyyeekoo sëriñ Cheikh Tidiane Sy Al moo ko wuutu ci xilaafa gi